samdi passé suba la samedi suba la am une semaine dañoo dem euh, conférence kii point presse su mbëri mais ñu gis fa loo xamante ni nii daanaka ci yow lañ ko njëkk a gisee loolu mise en scène la woon wala parce que dañoo ñëw ba foofu euh, gars yi def conférence parce que ñu jékki-jékki rek gis gato bi ñëw ñu ne teel anniversaire lu mu jon mise en scène la woon wala. waaw damay sant yàlla bu baax a baax a baax euh, di gërëm bëri Sénégal yëpp nag kenn ku ci ne ñoom ñëpp tu amul xaaj amul seen képp kuy takk ngemb rek ci mbër. maa ngi lay sant di la gërëm Ndakoro vraiment man wala billaahi wallaahi talaay fàttewoon naa ne ko loolu sama adversaire sax bàyyi ma ko woon xel. fàtte loolu dëggoon la du woon mise en scène. waaw yow mais man dama def suñu ñàkk fayda pour lan man na ma def loolu ñàkk fayda dama dama suñu adversaire fekk du sama adversaire kon maa ngi taxaw ne leen taxaw leen eh, ti arrêt laa leen wax. bu fekkoon ni ñu kafee da nga koy man le 26 décembre laa judd. yaa ngi dégg léegi ñoom benn waxtaanee ba waxtaan bi waaye jeex ci la Malick Yandoum taxaw ne na ngeen xam ne tey la bisu anniversaire bi Baye Mandione rek gars ju affaire bi surprise moo ma jàpp boo xam ne affaire dafa jëlee kaw barko rasulaay léegi mbir ju taxaw xam nga gars yi commencé tàccu gars yi seen i caméra su ma geesoo muuru man tey ñi ñëpp maa ngi ñoom ñoo bokk liggéey te am na suñu bëri ñoo xamante ni bëri naa ñoom tey yaa ngi dégg te tey c'est la première fois yaa ngi dégg ma ciy sant yàlla bu baax a baax a baax na sa daf bi mu jeexee champion yi ba doon ma wax ñoom ñëpp ma tudd tournage kenn ku ne téye na sama loxo ne ma baax ma li yor yor kàkk musu am ci mbër rek mbër yëpp dajaloo réunion mu yem boog sa biir sa adversaire ñëpp xam kenn ku ne am xol bu naaj yéene la affaire bi xam nga ñoom Bombardier Gris Bordeaux Balla Gaye Papa Sow Boy Niang xam nga mënoo lim ñëpp quoi vraiment champion yi fa nekkoon ñoom Moussa Dioum ñoom champion yi Sénégal yëpp ya fa nekkoon yaa ngi dégg te tax bu ñuy wax may gërëm Bombardier bu baax ndax ñun mooy suñu mag. koroog du ñëw moom moo ko jëmbal ndax moom suñu kilifa la ñun ñëpp ñun bëri yëpp suñu kilifa dëgg yàlla ndax moom moo fa nekkoon suñu doyen moo fa nekkoon suñu mag ñu ñëpp hmm. xam nga même Balla Gaye 2 yàlla na ko yàlla aar yàlla sàmm ko ci barki Seydina Mohamed Gris Bordeaux yàlla na ko yàlla aar yàlla sàmm ko ak mbooleem maanaam axlu làmb yëpp ndax koroog dama am surprise boo xamante ni surtout ma bi ma gën a marqué nag bu mbëri marqué na ma mais sëñ Mbacké Ndiaye ministre moo ma gën a marqué ci affaire bi donc nag waaw mbëri ni ñu def ndax boo xoolee da gaa nga jox parole mu wax ba pare bi Malikiane ne tey baa Baye Mandione moo génn xaal si poosam fu mu toog daan na génne leen goto ñu daggal ko fii affaire yooyu taf-taf te si la première fois koroog laay doog a gisee ak moom koroog laay doog a toog ak moom mu def atu boobu noonu muy atu moom marqué kon nag sëñ Mbacke Ndiaye ministre yàlla yaa xam loo bëgg yàlla nag la son borom dafa leer sa njaboot nit ku baax nga yàlla la yàlla son borom aar lu askanu Sénégal bëgg yaa ngi ci koom waaw chaque rek fu doomu aadama yi nekk rek ku xool daf lay gis te loolu nit ko yef moo ko man te te bu la neexoon nga di sa bopp ndax dégg nga ministre xam nga te nekk nga porte parole gouvernement ci sunu pap maam Ablaye Wade kon yàlla na yàlla son borom fay sëñ Mbacke Ndiaye loolu nga ma defal rénd ci man trop gota bi nga génn korog si kanam kanami naw lay mbër danañ ko dagal Baye Mandione comme tey la adversaire am yàlla na yàlla sama borom fay kontaan naa si trop xam nga mais mbëri làmbay daal wax dëgg yàlla ama seen fay yàlla na yàlla sama borom fay moom laay wax sa jour rek man na ñun mbëri nañu rafetal fu ñu toll ndax moo tax ki ki la yàlla boole ngay bëre ak moom ay adversaire ngeen pour ay quelques minutes mais bu jeexee jeex jeex na bu jeexee jeex na da ngeen ne bokkaat seen day bokkaat seen bàyyi ndax boo xoolee ñun ñu newoon foofu yëpp euh, ci ci sekk caa foofu almadi ñoo bokkoon lañ doon xeex